daal ñu ngi tey ci ba tey ci foire euh, ñu ngi tey ci benn box box bi grand ça va. oui ça va bien alhamdulilah. fi mu la Seydou Dia. Seydou Tekruur. Tekruur moo nekk fan. rafet fan nekk. mu ngi nekk Mbaaw. waaw en face lycée bi waaw. Euh, tey si yëngal ngeen ngeen si yëngal ngeen ñu présenté. ah ànd nañu Dumayeen mooy tamit ay doomu Tedungal. waaw ak ay sëtu waaw moom ñaata moo la am du may. bii mi ngi si 10 mois. waaw. Euh, famille yi ci ginnaaw ñaar nga ma ci mën a wax. famille fii am na doomu galo Galoya ak doomu Teddungal. waaw. kañ ngeen commencé liggéey bi. kañ la ñuy commencé. commencé liggéey liggéeyu élevage. 2010. waaw. Euh, tey euh, moto bi ma gis sama ginnaaw ni kan moo ko jur. bii doomu Teddungal la moom mooy malaado teddungal moom mi ngi ga quoi. wa teddungal mi ngi ga wa la ngeen préférer indigène mal baye mal bi. non bàyyi indigène mal rek ba ci kanam inshallah allah waaw daa am lu ñuy wajal quoi waaw waaw waaw. indigène mal bi mom ñaata mo bi mi ngi ci jeune mal mi ngi ci 10 mois waaw. da ngeen koy joxe wala den koy tey non bi ba ñu téye rek baa ñu téye ko. bu jë bu xaar ah? bi ah. mu fi fay xabi ah ah bañu egg ci inshallah allah waaw. kon nañ duggal sa way yaa nga ko bañu def émission. waaw mais instant toll nii mu ngi ci 10 mois instant toll moom instant bi dafa commencé tëb wala commencé gul tëb. waaw am na ñaari femelle yu mu fa tëb. moom jeune mâle dañuy a essayé. jox la ni ma la waxee rek même moom tamit yaayam foofu la juddoo. yaayam doomu champion moom ñaar porté. moom mu ngi ci quatrième porté bi nii mooy mbote bu mu indaale. ok bu noir bi nag mooy bi nga xam ni moom euh, blanc bi ëpp am na boo xam ne tout presque tout noir la mais beneen bi nga xam ni robe bi ci ndigg la yem. boobu boo xoolee moom mooy toorodo. toorodo moom doomu tedungal la tedungal doomu booy gale yaa la mooy bi nga fekkoon kër ga ñu koy liggéeyee. waaw robe tout noir bi booy gale yaa la moom ak euh, géniteur bu nekk kër ga. ñoo bokk ndey ak moo tudd Neene Gale. waaw. ma gis mu mboote yi ñoom ku leen jug. tamit doomu tedungal la. presque production maal bi rek. lañ fi indi quoi. waaw ah, tedungal moo moo moo moo lii dañoo indi production am. ak euh, maal bi ñu choisir pour mu yeggali liggéey bi. mooy duma yéen. mooy mooy mooy jë mooy jën maal bi. moom moo war a jël relève bi. kon ça veut dire que mooy li ma li ma xamadi waxoon rek. ci la ci la Tekro nekk ba léegi. mooy du question de fond mais yéen a ngi liggéey ci xam-xam. jeex na ñun moom ci xel la ñuy liggéey ak xam-xam. muy noonu. kon euh, tey dafa est-ce am ngeen lu war a dugg. non non dañoo ñëw pour exposer rek. Euh, présenté gars yi gëjoon nañu foire affaire yooyu. moo tax ñu ñëw pour kii. de daa am nañu xar yoo xam ni ñu bëri ba ñëwee ne xar yi war nga leen dugal concours apte nañ pour ñu dugal leen concours mais ñu ñëw choisir pour ñëw exposer waaw saafante gars yi daw génn waaw Tekru fan la toll instant bi moo fay jógee léegi ci ci ci ci wàcce ngeen tool wala ci ay jaay waaw ba léegi boo xoolee tey rek am nay xar yu wàccee mal mu ngi fa nekk defay production di wàccee yenn yi ñu mën a séddoog suñu mbokk éleveur yi ñu ngi koy séddoog suñu mbokk éleveur yi yenn ñu war a téye pour yeggaleeku liggéey tamit ñu ngi ko téye pour yeggalee liggéey waaw kon fàttali ñu repère bi textile bi ak numéro waaw euh, bergerie Tëkru mu ngi Grand Mbao ci ginnaaw lycée bi waaw contact yi mën nga jël 77 612 92 18 bu Xamadi Mbodj mën nga jël 201 05 06 77 ngay def bu Yaaya Diop yaa kontaan nañ dinañ fa ñëwaat na xool production bi de. ñoo la gën lu ñu tàmbali woon mais foog ngeen ñëw ñu yeggali ko incha allah